xamante si ñoom mokkal alquran wala ñu meen ko ñetti at nga fay am am certificat bi nga xamee ni si état bi da ko reconnaître muy premier diplôme d' état di certificat dinañ fi amal itam njàngub majalis sàmmal la sa alquran ba doo ko fëtt tàggat la ci wàllu tàggat yaram lu mel ni karaté yar la yarub lislaam bu dëpp ak njàngaleem Cheikh Bamba ko limité ngir ñi nga xamee ni si mokkal nañu alquran wala ñu meen ko ak fu ñu ko mën di mine képp koo xam si bëgg nga faa dugal sa doom mën ngaa woote si 77 600 282 54 34 wala 77 424 19 12 wala 70 850 kon mbokk yi baa ngi noonu institut Cheikh Ahmadul Khadim boo daaree alquran mafatih al bichri ak école franco arabe man ba al ulum si nitul sunu alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi ñoo ngi séntu waajuri donga yépp di leen xamal nag ni place yi dañu ko limité képp koo xam si mokkal nga alquran wala nga miin alquran ci diirub ñetti at di am certificat bi nga xamee si état da koo reconnaître yar laa tem yarub l'islam jàngal la sa alquran ba doo